jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci topp mu ngeen di topp Leewtoo TV euh, boo leen gisee ñi ma taxawal nag kenn dootu leen présenté ci milieu làmb Babacar di suñu doyen di suñu lépp ak euh, ki nga xamante ne bii moom mooy lamin bu Lit TV euh, ñu fas ne waxtaan ci tolluwaayu làmb reporter yi naka lañu dundee li nga xamante ne bii moom mooy Covid 19 bi jaxase làmb ji fi mu toll nii boobu ba léegi làmb amul Babacar nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay Babacar ah. waaw yaa ngi am jàmm maa ngi lay ziar di am contentement di nuyu téléspectateur u Leewtoo TV yëpp. nam nga làmb. waaw fii moom balaa may wax dara sax damay wax ne fii sama kër la. Mhm. sama micro ndax defe naa Babacar ak Leewtoo moom macha allah daal di leen nuyu du nuyu waa Leewtoo yëpp. équipe bi yëpp Mansour waaw non loolu yàllaa ko xam nga am na loo xam ne nit. mënoo ko effacé mënoo ko dindi day bokk ci sa carrière mhm. te fii dafa am expérience bu fa dund mhm. kon ça fait plaisir ñu fay waxaat nii quoi waaye ñuy am ci tolluwaayu làmb ku nekk xam na ne làmb li mu li mu li mu li mu doon drainer dafa bari ñi ci doon gis seen bopp dafa bari ba ci ñun reporter yi euh, euh, naka lañ dundee loolu. waaw comme ñàkk am bi nii. Mhm. waaw lii moom du ma ne sax xam nga tey bu ñuy wax xay na mën nañu wax si làmb mais dañuy wax Sénégal ci boppam en général mais xëy na comme làmb ci nga ma laaj làmb moom ku ne xam na ne weer wi ñu nekk ni mois de février. daan na fekk làmb di jax doon na tàng jër waaw daan tàng jër ñuy waaj ay journée yu mag di waaj ay tàkkusaan yoo xam ne yu doy doy waar la mais nag li olof yi di wax rek moo fi nekk ah euh, maanaam bu jinne bëggee daqaar ku yéeg daanu ça veut dire que yàlla mi nga xam ne moom mooy borom kun fa yàkkoon moom mooy dogal te moom moo indi feebar ci àddina bi boo xam dafa daj àddina laal ñëpp laalaale làmb tey moo tax làmb taxaw bëreetuñu vraiment yooyu yëpp taxaw muy loo xam ne lu la bon nag dañ koy nangu mais euh, nekk na loo xam ne daal vraiment wéetal nañu. lamb moom wéetal na population Sénégal rawatina ñun ñi nga xam ne tamit dañu yor ay micro daan dem par samedi wala dimanche di daje si lamb yi di xam nga mu nekkoon benn retour waay boo xam ne day neex des fois pour ñu gisante bu ñu déggantewul téléphone day yàgg loolu dèjà rek dafa metti sàkkantuma laa nag euh, manque à ba nekk ca biir waaw. yow lan nga gën a namm ci làmb exact waa bokk na ci xanaa gis mbër mu tuus waaw gis waykat bu way. Mm-hmm. gis amateur yu toog sañse ba rafet waaw gars yi sàjj ndënd yi nga gis lool ma daje ku mel ni Lamine mii ci terrain bi xam nga loolu sa sa sa beneen affaire la reportage yi bu ko defee yaa gën a xam bopp bi day gën a ubbeeku macha allah loolu dañ koy nam loolu vraiment lu ñu nam la vraiment nekk na mbir moo xam ne daal man manqué nañu carrément waaye nag euh, comme li ñuy wax rek wér gu yaram amul prix waaw nañu wér ba pare waaw parce que tamit looy def lu ne da koy tal te naa boo tal waa balaa ngay tal dara day fekk nga wér nga wér ba pare quoi waaw mais vraiment daal lamb moom lu ñu nam la wax dëgg yàlla. ma tourné jàkkaarloog Lamine Lamine maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo bu wér a maa ngi lay nuyu bu euh, bi naka la ko reporter yi dundee. waaw comme ni ko comme ni ko Babacar waxee rek comme ni ko yeneen secteurs yi di dundee yaakaar naa ne mbas bi moom laal na àdduna bi yëpp. politicien bi na ko laal na sportif a xaw daal ni mooy ni ko ñëpp di dundee rek respecté mesure barrière yi ni ñu laalee ci suñu liggéey noonu la laalee ñu ñu ko ñëpp dund daal noonu lañ koy dundee voilà. xam na ne wax naa ko sànq làmb ñi ciy gis ñi ciy gis seen bopp dafa bari. Euh, reporter bi sax poosam daf ci doon daf ci doon yëg dara. si. reporter bi sax dafa doon gis boppam ci ci ci làmb ji. Hmm. tey ñu toog presque dix mois wala un an làmb amul. un an parce que mois de février mois de mars mois de hmm. mars la arrêté woon 14 mars la arrêté woon. yaakaar naa ne 14 mars léegi mu ñëw. Hmm. un an boo xamante ne làmb amul yaakaar naa ne na trop trop trop trop te secteur yëpp comme ni ma koy waxee libéré nañ leen donte tëjaat nañ leen sax wala arrêté waat nañ. may woon nañ leen benn deux mois trois mois ñu dellu ci seen métier làmb nag dundaguñ loolu mais am nañ yaakaar ne incha allahu rabbi dinañ am ay combat ci saison yi deux mille vingt deux mille vingt et un bii. huis clos bi. huis clos lu mënul ñàkk huis clos mënul ñàkk ñu naan ay huis clos làmb ak huis clos neexul mais amul pexe amul. yow d' accord nga huis clos. d' accord naa ci de ndax amuñu pexe moom ministre bi li mu wax dafa leer huis clos wala toqaar rek waaw te Babacar nu ñuy wax ay du weesu bàyyi dee na ñaari toog waaw mhm. toog ñaari at bëri woo moom musiba la moom wii kuloo tane mhm. gënul waaye nag dafa tane waaw gënul de wii ku neexul ci amateur bi nga xamante ne bi da solo ba jekk ñëw toog stade jàkkaarloog mbërëm mbërëm tous mu kontaan neexul sax ci reporter bi nga xamante ne day yor micro di reporter combat bi mhm. parce que yow lamb bu feesee ñun Babacar dañ doon dem stade 9 heures ci suba ba 22 heures lañ fay génne duñu parce que ambiance bi ngay dund foofu la mais tey jii lamb ñu dugg émosiène bu Lac de Guiers numéro 2 ñu dugg fa gis ñu kenn ay siège rek ngay gis ay baafal ak yooyu noonu maanaam cawarte bi nga waroon a am doo ko am. làmb dafa am mais pexe amul pexe amul lamb dafa am saar moom mooy pexe amul. Mm-hmm. waaw lan nga gën a namm ci làmb. ambiance làmb lépp ambiance la man daal namm naa làmb. Mm-hmm. billaay namm naa làmb dama dama dama xoolal damaa mënul oser naan mbër mbër mbër sangam namm naa la bisam. Mm-hmm. waaye am na mbër yoo xamante ne namm naa seen bés. am na mbir yoo mbër yoo namm. wallaahi azim am na mbër yoo xamante <laughs> ne. am na mbër yoo namm nga Mm-hmm. am na mbër yoo xamante ne namm naa trop trop seen làmboo. mbër. ah déggoo ma lu ma la wax dama mënul oser pour tudd seen i tur. ñemewu tudd tur waaw ñemewu ma tudd doy waaw am na mbër xamante ni. Mm-hmm. beneen affaire lañ ci làmb. Mm-hmm. billaay yàlla xam na ko. kon daal mi ngi noonu amateur yi namm nañ làmb wante reporter yi tamit. namm nañu làmb mais Babacar il faut ñu waxtaan ci coowal euh, Las Las Vegas bi ah. Las Las Vegas ah. fële ci États-Unis gis nañ ne coow li bari na. ci diggante mbër yi. moo géet euh, gis na ne ku ci nekk bi nga demee ba ñu daanaka bi ngay dem kenn yëgul la da ngaa dem ba àgg sax ñu koy soogaa yëg ñun <laughs> ah? mais bi ñu ñëwee coow li mel ni tulleeg li loolu am na parce que balaa ma ci kii sax damay nuyu ka nga xam ne moom moom mooy moo gét parce que tax ñu koy nuyu mooy sën la nekk sénégalais nekk états-unis am lu mu fa mën ak lu mu fa def ba yàlla def tey mu nekk quelqu'un boo xam ne yaakaar naa ne am na lu muy wane ci liggéeyam te naa loolu engagement ak bëgg a doon dara moo koy may doomu aadama kon ñu koy nuyu si loolu di ko ñaanal jàmm encore une fois nag mbër yi comme ni nga ko waxee rek defe naa man Lamine mi bi Lirou def anniversaire am ñoo nekk ak moom mm-hmm. yaa ngi dégg su ma juumul ca guddi googu wala ba bët setee ca la dem États-Unis yaa ngi ndax kere boo xoolee bi ma koy jël sax mu may dóor naan ma bul wax xëy dafa foogoon damaa yëg loolu te man boobu loolu yëgu ma kon ñoom ba ñuy dem yëguñu leen mobile ci semaine boobu jël naa ko interview defe naa trois xaw ma quatre mu dem yaa ngi dégg man nag li ma leen di wax en tant que ay ñañu ñoom man li ma leen di wax ñoom mbër yooyu mooy nañu xam ne ñoom nekkuñu ay euh, maanaam dañu nekk quelqu'un ci li ñu doon exactement maanaam nañu gën a responsable ci seen ay doxalin ñun nag duñ leen jàngal dara waaye am nañ droit wax leen suñu xalaat parce que ñun ñëpp ay frère lañu mbër meek reporter beeg caméraman beeg ñun ñoo bokk Sénégal yaa ngi dégg nañu xalaat bu baax a baax ni ñuy dox te ñu jéem a rafetal soo mi duggee ko mars nit ki li mu war a am mënuloo ko koo teree am si addinaam si yaa ngi dégg lu ma la wax olof nag ne sukk Lamine Lamine Seck la tudd Babacar tudd Babacar Diom yow nga tudd Mbaye Babacar ku ci ne am na lu yàlla na nisër ci sa bopp bi nañu nangulante ciire gis nga Sénégal lan moo ñu sonal ñàkk nangulante ay ciir guy gi tey defe lamb bu xoolee moom bi muy débuté ci lamb ak fi mu toll tey war na sant yàlla bu baax a baax par rapport ak fi mu toll ak ñu mu débuté ndooloon te ñooña tey fi mu yegsi ci niveau làmba yàlla yóbbu yóbbu fa ñooña te est ce que a dàq bëri wala daf leen a gën non non non naka noonu mobile noonu ñoom ama neex noonu liiru jaan noonu. ku ci coow li coow li kon lan moo ko waral. waaw non xëy na ñoom ñoo ko xamaa nit ñi nag li ñu jàpp mooy xëy na problème ay intérêt laak ay xaalis ak yooyu te def naa ñoom war nañ dépasser loolu pour man war nañ ko dépasser parce que tey du n'importe quelle personne. la mooy yor ay visa États-Unis ay 10 ñoom ñoom ku ci ne ñu ci bëri yor nga ko te xëy li ñuy liggéey moo leen ko may parce que ay mbër lañu. gis nañ sa président de la république di tooñ ay di di kii ak étudiants naan leen léegi xaw am faru mbër xaw ma lanu mbër moo kii sax am am faru étudiant parce que mbër léegi mooy quelqu'un boo xam ne nii danga kay gis mu ngi ci avion yi di dem New York di dem du Duda Dubaï di dem fu ne gis nañ la preuve bërki dem Balla Gaye dem ci bayti laayal aram gis nañ Modou Lo Dubaï yooyu ay mbir la yoo xam ne teranga la nit ki nag bu la yàlla joxee teranga la ngay sant sa borom mooy teranga jooju nga muñ nga nga nga téye ko mais sant bokk na ci ngay muñ ya ngay dégg mu lay naqari nga di ko muñ ngir teraanga ji la yàlla jox loolu dafa nekk lu ama am solo ñu xam ne ñoom ku ci ne bi ngay débuté man na am pour nga jënd benn pënu jafe woon na la mais bi nga duggee ba ci biir làmb liggéey nga ñu jàppale la nga dem ba tey lu baree baree bare nga mën ko kon dama leen di xamal ne que daal ñoom ay responsable lañ nañ ko gën a wane moo get nag dañ koy wax jaaraama rek parce que li ma la sànq si moom rek moom am na lu mu def États-Unis ba tax tey mu mën invité ay sénégalais ñu ñëw foofu muy dox muy dox ci lu leen di yokk ak lu leen di yóbbu ci kanam kon defe naa loolu ñoom war nañ ci mën a tiire leçon boo xam ne nii daal jërul xulo jërul coow te dama lay wax benn affaire Lamine mi su ma ko waxee tey wax bu ñaaw ëllëg dañuy jàkkaarloo ji waat te man naa am buñ jàkkaarloo marus kon nag olof ne na booy xuloo xuus booy juboo da ngay tefesu nañu moytu bu ñuy xuloo di xuus maanaam mer bu mu la teree garder say neer xam li ngay wax régler say wax parce que en ëllëg juboo day am mm-hmm. nañu rafetal soow mi jube du duggee ko marché te encore une fois la da baax waxoon ñu tàppe xol yéenante jàmm suñ ko deful tam dañuy sonal suñ bopp kese ndax mënumaa tere Lamine mi doon Lamine mënumaa ko tere soxna Sële Ndeye Mbacke mële doon Ndeye Mbacke mënumaa tere Mansour mi doon Mansour ndax loolu dogalub suñ borom la kun fa yàkkun la yàllaa ko moom kon nañ te jàmm man loolu mooy su may wax ci mbirum Las Vegas moom mu mel ni euh, su ma déggee sa galano wax da nga ne ku ci nekk la suñ borom may euh, sa morom na la ko nangul bu boo ko deful sonn di mm. yow dama la mën a tere wax ci micro Leewtoo bii man naa ko. mënul nekk yow la borom kër ga doyloo. Mm-hmm. Lamine dama ko mën a tere wax micro Lutte TV moom lañ fa doyloo. yow mën nga maa tere wax micro Equivox man lañ fa doyloo. Mm-hmm. loolu mooy àddina. Mm-hmm. ku ne am nga sa mission mais fexeel mu rafet mais li jëm ci sa moroomum dëkkandoo sa moroomum jullit sa moroomum doomu adama ni yow mais rafetal ko pourquoi mënta rafet na rafet waxante dëgg nag bu jotee nañ ko def bu ma juumee nañ ma xool ci biir bët ne ma damaa juum. muy lu leer ma xam ko man tamit man nekku nit nangu ta sama njuum te pour ëllëg ma bañ ci jaaraat yaa ngi dégg mais nangulante faw mu am bu amul du du sotti ñun jullit ci nu gëm ñaata yonent la yàlla yónni bari nañu waaye Moustapha la tànn ne ko yaa ma gënal ci ku ma yónni xayru lan bi yaay yaa gën ci lu ma bind lu ma bind yaa tax ci ñun ñun jullit li nu gëm kon ña ña ña ca des est-ce que dafa tax ñu ñàkk cër am nañu cër mais yàlla mooy saaminoon addina da ngay mais tamit mais tamit d'une part nga yaakaar ne coow li coow li ñun ñun yi amuñu ci amuñu ci part de responsabilité. comme ban genre part lañ ci war am. par exemple ku jóg rek ñu tàllal la micro nga wax. waaw mais dépp man de ci li gis ñi ñuy jox ay micro ñuy wax pour man war nañu war nañu mën a jox micro ñuy wax micro nag dafa nekk loo xam ne bu ñu la ko joxee ngay wax yow da ngay xam ne àddina ngay waxal nga mesurer sa ay wax yaa ngi dégg reporter yi. d'accord man na des fois nga gis ku débordé ndax duma ne ñëppay def seen teg seen mbir ci yoon man na man Babacar mii di wax ak yow maa dàq a débordé waaye nag man mii yow mi micro bii nga ma dégg ma ciy wax waruma fulla ju toll ni dégg nga ma micro rek ma débordé wax li ma neex yow mi ma koy jox itam bul bu boo gisee ne maa ngi wax lu man neex war nga ma mën a redresser mbir mi nag dafa nekk loo xam ne déggoo dama lay wax leen ñun ñëpp ñooy defaru muy yow muy man muy lamin muy Ndeye Mbacke muy mbër ma muy man bi nañu defaru maanaam defaru mooy xool suñuy mesure suñuy parole yaa ngi dégg kii ñëw ci yow kii dëkk la micro kooku la mu soxla mooy nga wax wax juy jëriñ nit ñi am na ñoo xam ne nag des fois ñu xaabaabal wax ba wax loo xam ne nii luy tojum réew la te yooyu jaru ko xam naa daal Las Vegas ak Pekin ginnaaw raay ak Yoof ak Njaareem ak lépp ci yam na lépp rafet. na lépp moo gën a wóor. mi ngi noonu wax nga ko sànq olof Ndiaye def ne soo nee dama ne rek raw nga say buum teg wax. ba yeew say noonu wala wax rek ba yeew sa bopp mi ngi noonu yàlla nañu yàlla musal ci euh, wax ba yeew sa bopp nag Lamine euh, dañuy ñëw ci coow li amoon fële ci Las Vegas ci diggante mbër yi nga xamante ne bi ñoo fa demoon ban jàngat nga ñu ci mën a defal jàngat bi ma ci mën a def mooy ay nit yoo xamante ne jota nañ te mënuñu mënuñoo xam lu leen boole parce que kii dafa wax kii xëy weddi kii nee na diw wax na ma léegi problème bi ñoom dañu am seen ay réglement de compte boobu buñ koy réglé xam man maa wax sax ci ci jàngat ba man fi may waxee mooy li nga mujjee laaj Babacar mooy ba xam presse bi mm. am nañ ci part de responsabilité presse bi amuñu ci benn part de responsabilité man ak yow suñu am suñu mënoon a suñu suñu bëggoon a jotee mën mën mën ngay wax di jox wala may wax di la mën nañoo tase xeex man mën nañoo tase xuloo presse bi ñu ci benn presse bi information la ñu ut mm-hmm. information la mm-hmm. bu nekkee guy gi ak ak liiru jaan dañu am problème mm-hmm. ma dégg yenn mbër yi def ay sorties hmm. naan presse bi lii presse bi la ah ba waa presse bi waroon a taxaw defendre man ci àdduna amul benn mbër benn mbër laa la wax de de A à Z. Hmm. bu may nangul tey nga woote conférence de presse di wax di wax presse bi moo koy fekke hmm. loolu moom ci àdduna du ma ko nangul benn benn benn nit. nga woo presse bi di leen waas pour lan yow ñi ngay woo di leen waas boo bëggee ay leeral ñoom ngay woo soo bëggee joxe ay don ñoom ngay ñoom joxe. bu la sa parrain woowoon dina may xaalis nga bëgg koo siiwal ñoom ngay woo léegi bu amee ak nit problème kooku kooku classe la ci benn benn benn benn benn site mm-hmm. ci benn micro mm-hmm. nga bëgg a classe bëgg a classe boobu noonu wala nga classe ñëpp mm-hmm. te li ñu wax ñoom duñ ko ñemee dañuy nekk foofu di gaar wala de gauche à droite presse bi maasé la noonu gi tey ji ku war attaque attaqué Lutte TV na taxaw attaqué Lutte TV Lutte TV su waree riposté dina riposté su warul riposté mu bàyyi mu sedd soo waree attaqué too nga attaqué le tout nga assumer ses responsabilités ñoom dañu am seen problème mu bopp ñoo ko siiwal nit ñi nag ku ci toog tey tey jii man mënoo mënuma mënoo maa jël interview ma joteeg Babacar nga wax man ba wax ji jeex te doo ma laaj ci loolu mënul nekk mm-hmm. parce que ñoom ñoo siiw mm-hmm. seen problème bopp la nañ ko lijjantil seen bopp nañu assumer ku ci nekk rek li ngay wax assumer say responsabilité soo waree xeex nga xeex soo waree xuloo nga xuloo mais soo waree jéggale tamit nga jéggale ma ñu tooñ ma sàmm wala nga tooñ wax nga ko sànq ne nga mbër yi dañuy am ay règlement de compte seen diggante en tant que reporter nga nekk seen biir tey su fekkonte ne bi am na message boo leen di boo leen di lancer lan lay doon en tout cas da moom du mbër kese ay nit moom bu ñu bu ñu mën a nekk ci jàmm loolu mooy li gën ñoom bu nekkee waa Pikine la duñu bëri ci seen biir kon li li leen di may doole mooy ñu nekk ci benn bu nekk waa Géejawaay bëri wuñ seen biir li leen di may doole mooy ñu nekk benn parce que mbooloo moom mooy doole olof na mu koy waxee Babacar sànq lañ bu ñu boolee wat wel parce que wax naa ko tey Lirou Diane ci benn interview bu ma doon def ak moom boo xool bu mu ubbi dama ne ko dama bëgg mu nekk bu sérieux parce que dama bëgg ay njariñ génnee mu def ay révélation mu defee loolu bu mu xëyee Abdou Diouf woo na ma pour wax ma benn conférence de presse maanaam ay leeral ñoom tamit ci waxtaan bu sérieux ci biir waxtaan bi nee naa ko yéen géejawaay bu njëkk mbër bu fay jóge rek da nga indi ay supporters yu bari léegi ña fay andi mbooloo dañ leen di wàññi lan moo leen ko mayoon booloo moo leen ko mayoon nañu fexe waat booloo ñoom ñëpp ku ci nekk nangul moromam li mu ko war a su ko defee tey ji Babacar su amee combat yow nga jàpp ci gauche man ma jàpp ci droite keneen jàpp ci diggante bi ndax booloo rek moo leen mën a may loolu mais bu ñu boolowul ku ci nekk ñi la bëgg rek ñoom ñoom ñoo lay ku nekk say mbokk ñoo lay gunge mu jeex tàkk mais say mënoon nga am sens samay mbokk gunge la mbokk Babacar gunge la man su ma amee combat yow nga ñëw Babacar ñëw keneen ak keneen ñëw maanaam daal ci mbooloo daal lañ leen di woo ci bennoo ci bennoo lañ leen di woo amuñu intérêt pour di jéem a jaxase pour lan jaxase wuñ sax ay nit simple di leen jaxase ñoom mm-hmm. ay nit simple lañ sax maanaam bu ma waxee nit simple maanaam koo xamante ne kenn xamu ko jéemuñu leen a jaxase waxuma la ak ñoo xamante ne xam nañ leen mm-hmm. man de su ma war a su ma war a xuloo moom mm-hmm. su ma war a xuloo dinaa waaye su ma waratu xuloo du ma xuloo su ma waree xuloo ak yow nag du ma fi nekk di gaar waal naan naan ki takkoon verre yaa doon sàq mi si ngoom. macha allah macha allah am na am na am na solo mais mais mais mais diggante Babacar ak Lamine lan la. waaw loolu moom xam nga soow boo ko jëlee nga jël suukar boole dugal boole leen xam nga danga koy nga tuur ko. wala yëngal naan te defe naa tuur ga du am njëriñ ndax boo ko defee daan yàlla mën na la caa fekk boo ko naanee nag mu amal la njëriñ ndax dana faj xiif te da nga ci jëlee yaram wu sedd xam nga yàlla dafa am la moom moo koy defal boppam Muhammadu moom defe naa ku xam ne mooy xayru xalqilaay moom la yàlla yónni mm. moom mu tudd Muhammad te defe naa bi mu ko yónnee ki ko njëkk a gëm Babacar la yaa ngi dégg kon defe naa Lamine. kon kon mën nañ jàpp ne ànd bi du hasard. non non non ndax Mouhamadou Lamine mooy gën gi mbindeef. waaw Seydina Babacar moo ko njëkk a gëm. te ñoom ñaar ba ñu àndee ci xuntuma. Mhm. jaan ja bëgg a màtt sangu-sang yi. Ah. sa turandoo sama turandoo. moo tàllaloon tànkam jaan ja màtt. kon loolu leer na Seydi Aboubacar kon loolu du àndu hasard lu yàlla programmé la lamin la la nag ba pare yàlla dogal tamit xam nga xam nga xam nga Lamine ba ñuy xamante. dama koy wax di ko wax di ko waxaat ba ñuy xamante boobu xalaatu la yor micro man xalaatuma ko bëgg-bëggu làmb moo ñu boole woon ñu daan ànd daan seq lu bari ba yàlla doxal ñu bokk di liggéeyandoo liggéey ba it moom ma si dalal parce que ba tey ma waxaat ko rek dama koy wax di ko waxaat olof na ne waxaat du bëri wax mais leerali wax la moom ma njëkk a jox micro. moom ma njëkk a jox micro nangu ne ci ginnaaw di filma may wax ba ñu xam ma yaa ngi dégg kon defe naa ku la defal loolu nag yéene na la defe naa ne bu ñu xamee Babacar grâce à Lamine la parce que ki la jox micro nga ne ci ginnaaw di film bëgg nañu ñu xam la defe naa muy nekk nit boo xam ne tamit ci li ma li ma xam mooy sama bàmmeel laa taxaw du naafeq du wax lu mu xamul te itam du fenkat te du wàlli bañe dëggu na itam man nga ne nag naqare dara parce que réew mi des a ngi jooy de. waaw non non wax moo nekk de barke alxuraanu karim xam nga maa ngi moom ni xam nga tey mu ngi yore xam nga ñu ngi def concurrence man ak moom. parce que xam la mooy concurrence mu ne ci kër ma ne ci kër ne ci kër mais li ñuy def dafa sen dafa rafet te saa bu ñu dajee ci milieu seetlu li ma la fu ñu daje mu jël micro yi jox ma bu ko neexoon du ko def ndax gënu ma ko xam li ñuy def mais loolu respect la nit ki olof na ne sukk du tere yóbbu say oom mooy li ma doon wax sànq rek moom bu ñu dajee la preuve barki dem bi ñu aéroport si rëg-rëg jëlul micro man ma yore micro yi fu ñu man a dem bu doon si Balla Gaye la wala si Modou Lo lépp man la koy jox loolu du dara lu dul cër bu mu ma jox parce que joxuma ko lekk joxuma ko naan mais xam naa ne jox na ma cër ba ma xam ko ba des fois sax dama siy ruus kon nag moo tax daal li may ñaan yàlla mooy yàlla nañu yàlla lafal cat sama diggante ak moom yàlla sàmmal ñu ko parce que li ñu boole daal bëri na ñëw na ba sama kër te man mosuma dem këram looro fanaan na sama biir kër ak yaay te loolu dèjà lu foor foor la mu koo xam ne gor pire li ma ko daal yàlla na ko yàlla may soxna su baax mais lu muy xaar comme que yaay copain. borom Thiès léegi ñu ñëw <laughs> léegi ñu dem Thiès lañ jëm quoi non Thiès lañ jëm peut-être que dëkku Lat Dior. Ah ca jàmbaar ya benn dëkk ñaari ñaari gaar. fa lañ takkee incha allah rabbi. mais léegi looy wax sa diggante ak Babacar. waaw comme ni mu ko waxee rek làmb maanaam micro yi boole wu ñu ci làmb lañ xamante nag loolu yàgg na yàgg na trop man ak moom ak bës daa fàtte bës làmb moo ñu boole. fi ñu doon daje moom duñ ko wax. fu ngeen doon daje. xanaa <laughs> ah loolu dañ koy codé waaw mais comme ni mu ko waxee rek li mu wax yëpp ci moom la nekk. Badou da ngeen bokkoon gel yéen tamit. non yàlla tere subhanallah loolu. ah est-ce que bokk leen woon gel na leer. non non non non mos ñoo bokk gel. Ah, ay mais ñoo bokkoon ñu doon supporter daal. Mm. waaw a bokkoon mbër. ak lu mën a xam waaw ñoo bokkoon mbër pour muy leer. <laughs> mbër moom nag ba léegi man mooy sama mbër damaa xamul daf doon xaw ma mbër mu góor la xaw ma mbër mu jigéen la. mi ngi bëre ba léegi mooy sama mbër. ah man ba léegi. kooku mooy sama mais ko dee nang. naa la ko di après. ma wàccee micro bi ma moom xam na boppam. sax waaw hmm? comme ni ma ko waxee rek lim mu wax daal moom ci moom rek la nekk. Hmm. moom ma sa dégg ci góor gu baax mu ni sa nit dee ko nëbb. ma amee sa nit dee ko peut-être man moo may dal ci moom bañ na ko moom moom li muy li muy fësal sax man rarement laa koy laa koy laa koy fësal rarement rarement parce que parfois dañ ci dafa am ñoo xamante dañ ciy trompé wu dinañ def interview boo xamante ne man ak moom ñoo ko def sax te nekkul man moom ñoo ko sàkku ki ñuy defal interview bu moo moo koy woo woo ma man mais ñu ci bari tey dañuy dañuy trompé ci côté boobu dañuy dem ci pet affaire yooyu noonu même loolu su fekkoon mën naa nekk sax garaawul amu problème bu fekkoon tey dañoo gis ni man moom gis naa ne war na ma mën a jël muur la ma woo loolu su mën a nekk tamit dara nekku ci mais yi muy am yëpp ngeen koy gis yëpp ki ñuy jël moo moo mooy souhaité loolu. ki ñu jël mooy suwete loolu li ngeen gis yëpp ba ci keroog bu rëg-rëg bi Leyti Sène moo coordonné loolu loolu maanaam nekkul ci moom nekkul ci man peut gis-gis la boo xamante ne daal nit ñi ñoo am ci ñun di ñaan yàlla mu sàmmal ñu relation bi rek waaw. ba ba yeneen judd ci. Mm. incha allah ba yeneen judd ci turandoo mën na cee judd ak yeneen ak yeneen mi ngi noonu jaajëfal nañ leen. turandoo gën a tuuti sax turandoo gën a tuuti. <laughs> mais gis naa la nga laal ay fonde. waaw no loolu moom waa non waaw loolu mu ngi nii loolu moom loolu moom dama koy wane quoi loolu xam nga xam nga xam rek ndeysaan sama DC bi moom bëggul sa ku tudd turam mais faw ma koy ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla yokk barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax xam nga am na yoo xam ne daal ku la ko ji rek ji na la ngor daal waaw sagal na la tamit quoi vraiment a ah, ñëw naa mu bëgg ma liggéeyloo liggéeyloowu ma nag pour ay affaire de weccet kese mais dañu jàppante en que frère en tant que ay sénégalais yu bëgg liggéey mu nekk nit goo xam tamit li ma gën a naw ci moom moom mi moom groupe bi li ma gën a naw ci moom mooy nit ku dëggu la du wax lu dul dëgg loolu laa jëkk a def ci moom constat te itam respecté na trop trop trop ki muy ndax respecté ki ngay liggéeyal mooy li ngeen di def yéen a koy partagé boo ñëwee rek ñuy fekk ak ñun li ñuy sol sa du ko sol te yàlla xam na ne kilifa gu mag la ci réew mu ngi yore na ndomb tànk mais li ma gën a impressionné si moom te yàlla araamal ko du ko baal ti faaxat mooy fen du ko def loolu moom seetlu naa ko ci moom ma koy ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla yokk kàttanal ko yokk waa Equivox yëpp mais tamit di jaajëfal El Hadj ma nga xam ne moom moo moom directeur de production bi waaw di fi dégg benn benn benn caméraman benn producteur wala benn kii bu ñuy tudd ci wàllum technique yàlla xam ne ne El Hadj kooku yëgul El Hadj si we mais nag li si raw li bët olof ne na bu njaab yàggee nga war feeñ yàlla nañ fi yàlla bàyyi ba si kanam jaajëf Babacar sama doom day kontaan naa yàlla na yàlla dooli jàmm ànd bi yàlla na ko yàlla saxal barki Seydina Mohamed merci beaucoup parce que yàgg nga may témoigner sa cofeel ci man mm, sama toomaa waaw depuis Diourbel mm. ma lay nuyu di nuyu waa Diourbel di wax ne yow moom ñoo bokki tool ndax bu ñu ñibbi ñooy bokk horaire bi nga continuer njaare ma wàcc altu ndàngal ma dem ak yaay du mën a ñàkk kontaan ci yow jaajëf di nuyu Pape Thialis Faye tamit mm. sama DG boobu man ngi koy ñaanal jàmm bu baax a baax mais kenn du maane <laughs>